bismillahi rahmaani rahim kun kaatiman li durri wal busaatanal xasdan wa taalun jiila yaa mutallimu kun kaatiman li durri wal busaatanal xasdan wa taalun jiila yaa mutallimu لا تبصري زقوافكم متجلدا حتى تزون الناس أنك ملام فليلم لا يعطى لمن يعصى التوى بل ربنا عبدا صبورا يلهم داوي الخلا درس العلوم متليا yaa wayaatim sillin tawaayata jamjamoo laa tastaxi birrisqi sa rabbul wara mutakaffilun risqa allazi yataallamoo wansal ilaa ali diini mutaafizan isla yanaalul ilmaasi mujrimoo naayil kawaa هب والخواني واعتزن إن تدن منا من ردا لا تسلم لا تسري دنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بالدجى فسيندم لا تزتري دنيا بأخرى يا فتى man baa nooran bi du jaafa sa yandamoo rikk asal lu mën a xew awal ndigal te kon de nga làq wépp yiw tey ak la ko wax rikk asal lu mën a xew awal ndigal te kon de nga làq wépp yiw tey ak ko wax lépp lu dee jug di wut yara ko gën gën koo rafet moo jara junni bi at sëriñ bu ko jox ku yaru rekk a mataam ku yaru rekk a mata ku yaruwul matula am matula wasax ab yar li tax amul moroom day tax a gën fa say moroom day tax a gën fa boroom ku la yarut rekk a ku la mayooni junni te jàppul bu yar may léegi nga junni yarot boroomi yar for ko ta ku yaruwul matu la yar ku yaruwul matu la yoru ku yaruwut al ku nafar ku yabu far tabbal ko pax ab yar yemoowul dara ku ko amul amoo dara ku ko amit ñàkkoo dara sëriñ bi yan nanu ko jox ab yar la dee fi ab yar la dee fi ab yar la gene nit ndedu alal ak rëy yax juru mat la damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ngir dootu gis mbaaxam nga ku gis boroomam dootu gis boppam te moo ne dootu gis moroomam it te dootu gis dara ka waxi waxi la rax te yàlla kat ku ko am yaruta kenn du ko am te amuloob sëriñ ndaxam ko xam du wet di jile wax nde yàlla nee alxuraan wutal ci man ab kerkeraan te ab ab kerkeraan asan jàppal ci jile wax nde yàlla nee ci alxuraan wutal ci man ab kerkeraan te ab ab kerkeraan asan jàppal ci jile wax